sant waa gep rawati na xam yeen presse bi ni waaw di len nuyu di len ziar. lolu amna solo champion bi non la nuyo mais ginaaw ba nga xamé ni nuyu nga waa Tivaouane comme ni nga ko waxé nga jëm ci bis bu mag ñuko don wajal ay weer dem ba mu dess ay bis mu jëm la 5 mul champion bi fan la waccay bi toll. waaw comme ni ñu ko doon rek comme ni ko doon yeneen bis ni nii lañ ko rek. lolu amna solo waye bis bi ñu gis simbul bu teju mbul bu nek ci roxam ñu gis mbul bu musana am combat dañ koy gis ci arrêt jakarta yi muy fo xalé diko fekk ci place yi combat bi ñu gis ci mbul bu teju ba ci ñun wa tiawon sax bu ñu soxla mbul pour ñu gis ko problème la lu waral teju bi adversaire bi la wala combat bi wa comme niñ ko doon préparer comme niñ doon préparer yeneen ni non lañ préparer bi rek amaana ma ngi genn mais xamna gaay gars yi ñoo ma rek mais ma ngi genn quoi lolu <laughs> amna solo ya ngi genn gaay yi ñoo la gisul mais ngay wajj bis bo xamni ki ngay beurel est ce que xam nga ko bu baax Doudou Sané non non xamna ko ni ni ni ndax luur la mooy luur rek xam naa ko nii waaw. Euh, dam avant tout nag damay jàllale benn message si moom ndax damay dégg ma mbul moo ma jël mbul moo ma moo may wër di ma laaj wëruma ko laajuma ko maanaam damaa ciblé sama sama sama adversaire mu bokk si luur yi luur la comme man ma bokk ma ak moom xama moo tax ma ciblé rek ni waaw mais du question damay wër ni ko moom laa soxla di doo moom foo mu xalaatee ak affaire bi fa mu amee bokkul. loolu am na solo mais yaakaar naa ne fi mu toll nii ku laaj sa morom amatul sens li solo mooy bis bi la la ngeen war a jëflante est-ce que pare nga mbul gis nañu mbul macha allah bi ñu ko xoolee ci forme bi ku ko xool xam ni yokk na macha allah li mu war a yokku lépp sentir nañu doole gis nañu koofur mais est-ce que pare nga pour jëflante ak Doudou Sané. ku dul Doudou sax pare naa pour moom ku dul pare naa pour jëflante moom Doudou yo Doudou Doudou la rek dafa nekk sama yoon rek. mais ku dul moom pare naa ko. est xam nga combat bi lan la ci waa Tivaouane di xaar. non may wax waa Tivaouane nañ dara seen xel. dimanche yàggatul. incha allah dañ koy def comme nañ ko daan defee. dañuy dem jëli indi ko fii si kàttanu yàlla. mais loo gis ci analyse techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ñëpp ni bu ñu sampee xeex mbulam moom combat waaye bu ñu jàppantee Doudou Sané moom moom est ce que d' accord nga loolu. <laughs> maanaam Doudou maa ko ëppale lépp. laa yow lépp laa ko ëppale lépp muy bëre qualité bëre maa ko ëppale. bu benen fande bi mako ko ëppalee amul lenn lo xamante daf koy indi mu jaaxal ma. wa parce que lolu lolu il faut ñu taxaw ci ndax dañu gis duru Sané 5 combat rek la def 5 victoires machallah nek ndanan nek lu am solo ñu gis Mbul def 14 combat def 11 victoires def ci 3 défaites kon koku kenn du natable champion ñu bëgg ko def favori ci sa kaw lolu lan la lay def. wa dafa nek sama yoon lamb rek comme lima la wax sank rek manam lamb moñu bolé rek waaw lamb moñu bolé ñu wara a rek. wa parce que lolu warut jaaxal kenn ndax gis nañu Mbul mu bëré ay champion nga jugee ci combat. ci champion d'Afrique muy Auguste Manick Sène ñu gis dóor yi dóor mbur dóor ko ba mu tëddal boppam nga bëreeg champion Boy Faye ñoom ñëpp nekk ay mbëri simple nga daan leen kon yaakaar naa ne daan Doudou Sané waru laa jaaxal mais est-ce que combat yooyu la nga ca liggéeyoon ba daan ñooñu liggéey nga loolu ngir daan Doudou Sané lu raw lu liggéey bu ngeen gisee mbul boobu noonu ak mbul bi sax ngeen bokkul waaw raw lañ liggéey comme li ma la waxoon rek pare naa demuloo ñu dékk ko micro mu ni combat bi li ci nit xalaat xalaatu ko ci du taxaw di la xaar day mam mu ni day daw jëm ci sa kaw Doudou Sané bu dawee jëm ci kaw mbul doodu def doodu ko def bu dawee ci kaw mbul doodu ko def bi dégg ngeen comme ni mu ko waxee mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan ñëpp mbul nee bu Doudou Sané dawee ci moom doodu ko defati mais mbul ñu gis combat bi ak population bu Tivaouane lan ngay préparé ci mobilisation waaw avant tout nag may woo xam nga ñi nga xamante ne ñoo war a jàpp ci combat bi ku si mel ni Diop ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax mu jàpp si Abdoulaye Ndiaye Ngalgu moo borom bis bi waaw ñu ngi koy woo moom it si combat bu baax a baax a baax bi may dem signature ba nag am na nu mu defoon ak man yëkkati na xaalis bu bëri jox ñu mais nee na loolu du dara paas la rek waaw ñu ngi koy woo si combat mu jàpp si bu baax a baax a baax di woo sama sama grand Michel Masseer Masseer maa ngi koy woo xam nga yónnee yónnee na ma tamit xaalis bu bëri nii dafa génne nii mais yónnee na ma xaalis bu bëri grand Simol xam nga tamit maa ngi koy woo moom it jàppale na ma si combat bi waaw may na ma xaalis bu bëri ne ma préparé set xam nga sa open press Abdou Samb tamit aussi xam nga waaw di ko woo si combat bi bu baax a baax mu jàpp si di woo xam nga sama mafia sama maf sama mafia bépp di woo di woo di woo waa di woo waa arabe bi wa are wa are kalandoo yi wa wa are wa are njagambay ma len di wo xam nga di wo are yep bayuma kenn wa gi xam di wo ñep surtout ba sama talibe, yi sama ndongo daara yi voilà ma ngi wo mbul wote bi amna solo mais kenn du wax lamb taw waxo walu ñaan manam misik ñu gis dudu Sané heure bi ko tàllalee micro mu ni jof yor lay ngembo arrondissement bi ci walu ngemb gaa yep ni dudu Sané dafa am ngemb fan la mbul tollu ci ngembam ma ngi sama rukku rek ma ngi sama rukku waaw suñu borom noppi na lépp incha allah. loolu am na solo.